naatalub Ousmane Sonko moo fa fës réew mi quotidien di ñu xamal ni kon Sonko fanaan na guddiyam bu njëkk ca kaso gannaaw jàkkaarloom ak doyen des juges ni ki démb moom jiital parti Pastef wala ndem si yàlla Pastef dañ ko mujj duut ab mandat de dépôt gannaaw lu toll ci juróom-ñetti mbir yi nga xamante ne moom lañ koy toppee ndax yokk nañ ci diffusion de fausses nouvelles mu nekk lu métti ngir Ousmane Sonko waaye tamit ngir askanub Sénégal ndax koom bi démb mën nañu jàpp ne lépp daal di taxaw rawatina capital bi Dakar démb ak dikk bi daal di lompoñ péage bi ci VDN bi transport public bi lépp daa di taxaw mu metti lool waa F24 ba ñu jàpp ni lii yëpp li ko waral bokk na ci lu ñuy topp benn nit képp bëgg ko faagaagal faagaagal am na ba noppi ndax réew mi quotidien mu ngi ñuy xamal ba tey ni njiitu réew mi Macky Sall daa dinay jël dogal tas parti PASTEF mu nekkoon xeex bu métti diggante Ousmane Sonko ak état bu Sénégal Sud Quotidien dikkaat ci li nga xamante ne askalaat la ko duppee muy dëggal ni kon maire bu Sikicoor dañ ko dut ab mandat de ko ca L'Observateur fësal dogal bi nga xamante ne moo jëm ci tas parti Pastef les Patriotes yéene kaay groupe Sud Communication bi dikkaat na yi tamit ci manifestation yu taratar yu nemmeeku ci Ndakaaru ak ci Sikicoor ba lu tollu ci gën cee neew ñaari doomu aadama daal di ciy ñàkk seen bakkan Sonko ñàkk na xeex bi Sonko ñàkkit parti am di Pastef Vox Populi moo ni xamle di wax ci dogal bi nga xamante ne moom la doyen des juges daal di jël sukkandikoo ci juróom-ñetti mbir yi nga xamante ne moom la ñuy toppee opposant bi loolu tax ba Sikicoor tàngoon jib ndax ñaari doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan li ci gën a métti Vox Populi di ñu xamal ni dara doxul ni ki démb bokk na ci internet mobile bi nga xamante ne dañu ko kuppee Sonko ci boppam dañu ko coupé ak askan wi ndax le quotidien le quotidien mooy xam le ni gannaaw bu ñu ko placé sous mandat de dépôt jamono ji meeru Sikicoor bi moom ci huis clos lañu ko def ndax juróom-ñetti mbir yi nga xamante ne moom la koy toppee yéenekaay bi def na ab jàngat ci ëllëgu projet Ousmane Sonko bi ci boppam dikk nay tamit ci limu ñi nga xamante ne ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci bëccëgu démb bi lim boobee libération jàpp na ni kon ñetti doomu aadama la ca Sikicoor ak Ndakaaru ñi nga xamante ne ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan gannaaw bi ñu yóbbee Sonko ca prison ci biir libe ñu ñuy xamal ni tamit njiital Pastef moom soppewul doxalin benn yoon ba mu jàkkaarloo ak doyen des ci boppam ndax pat pataaral gi la ko may li ci gën a métti mooy parquet bi ci boppam daf ci yokk diffusion de fausses nouvelles mu toll kon ci juróom-ñetti mbir yi nga xamante ne moom la ñuy toppee Sonko Sonko ci rëbës la fanaani L'As Quotidien moo ni xamle gannaaw janoom ak doyen des juges ni ki démb L'Observateur di ñu noteeli tamit jàkkaarloo googee nga xamante ne démb moom jiital Pastef dafa ne tekk ne du tontu laaj yi nga xamante ne moom la xam Diallo daal di koy samp rax ci dolli dafa lank ndaare ne du xaatim procès verbal bi nga xamante ne moo tukkee ci jàkkaarloo bi jàngat nag bi yéene kay groupe Média bi daal di def CEDEAO ndax li ko dese moom jar naa xoolaat ëllëgu parti Pastef mi nga xamante ne dañoo jël dogal daal di koy tas yéenekaay bi dikk na tamit ci jaar-jaaru opposant bi nga xamante ne fës na lool ci wàllu politique xeex ba keroog bi nga xamante ne dañu ko duut ab mandat de dépôt yóbbu ko sebi Sébikotane ëllëgu ay élu yi nga xamante ne ñoo nekk ci Pastef te ñu daal di koy tas loolu tamit suñu naataango yi indi nañ ci ab jàngat jàngat bi enquête quotidienne def ci li dal Ousmane Sonko bokk na ci lu ñu jàpp la ñàkk maturité ci wàllu politique taxawaayam yi tamit nga xamante ne yenn saay da ciy wéet cundung mën nañ ci yokki tamit intérêt Sénégal ca biti réew yi nga xamante ne dañoo jàpp ni daf ko salfaañee enquête ni mu ko jàngatee daanaka l'évidence tamit noonu la ko gisee moo di Ousmane Sonko mi ñu yóbbu ca prison dara waralu ko lu dul ay kàddu yi nga xamante ne daf ko yëkkati waaye tamit ñàkk expérience dëgg ci wàllu politique moo tax li mu doon wootee ci projet bi nga xamante ne bëri na ci lool ñi ci àndoon rawatina ndaw ñi njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal daal di koy xotti bis bi moo ni jàngatee dikkaat naa ci naataalup ki nga xamante ne moo nekkoon ci impôt domaine dugg ci politique wane fa boppam laata état ci boppam di ko nañu démocratie ci boppam lañu ko def gis-gis boobee la témoin yéenekaay daal di am mu gis ni démocratie bu Sénégal ci boppam moo nekk ci guddi yu bër setakul ndax Ousmane Sonko mi ñu yóbbu ca prison tas tamit parti Pastef ba ay nit ñàkk ci seen bakkan le temoin dikk na ci li nga xamante ne moo waral lii yépp li ko waral kay ay gént benn nit képp la tribune yéenekaay jàpp ni mooy Macky Sall ndax saa yu tëddee saa yu xëyee tamit lu muy mbëbët yépp mooy fexe ba daal kii di moo tax le soleil yéenekaay jàpp ni Sonko lajj na ñaari yoon muy li ñu ko yóbbu ca kaso waaye tamit partiyam tas nañ ko mu mel ni dara deseetul kii di Ousmane Sonko yor yor ne ko déet ndax tey ji la Ousmane Sonko gën a dogu Pastef tamit di wéy di gën a wane seen Pastef ngir li nga xamante ne mbëbët nañ ko ba yegg si fii ñi ànd ak Ousmane Sonko moom li ñu mbëbët wane nañ ko ni ki démb ci mbedd Ndakaaru yi ak Sikicoor ba ci sax yeneen gox fu ci mel ni Thiès Walfadjri wax ni cocktail explosif sax lañ ci mën a nemmeeku tàkk-tàkk yi yàqu-yàqu yi waaye tamit bakkan yu ci rot ni ki démb bëri na lool coow li naan cobbay ci mbirum Ousmane Sonko jamono jooje ndaw ñi moom ñu ngay wéy di wutali tugal jaarale ko ci mbëkk mi 24 heures di ñu nettali beneen jéye bi nga xamante ne amatina ca Kédougou ndax suuxub beneen gaal bi nga xamante ne dafa yaboon ay ndaw juróom-ñeenti doomu aadama ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan ñeneen ñi ñàkk seen bakkan ba ñu gis seen néew démb la ca plage lagon bi nga xamante ne soriwul benn yoon palais de la république muy ñaari yi nga xamante ne ci ndox bi lañu ko gisee mu nekk mbir mu doy waar leneen li doy waar xewee ci hôpital Abass ndaw bu ndakaaru libération moo ñu koy xamal ni kon ab liir tollu rek ci ñaari fan lañu fekk mu ñàkk bakkanam ci biir ab machine à lave bi nekk ci hôpital bi baay ji di nettali ni doomam ci biir yëre yi lañ ko daal di fekk ci anam yu doy waar ndax yenn ci ay cëram sax machine bi daf ko dagate Sadio Mané dagate contrat am ak waa Bayern Munich réew mi sport dañu xamal ni kon léegi leer na moom doomu Bambali bi dem na ca Al Nasr